Ousmane Sibi, chargé de communication du SEMPA. Euh, je voudrais, au, à l'entame de mon speech, vous faire d'abord lecture de notre communiqué de presse que vous avez sous vos yeux. le SEMPA, soucieux de préserver un climat d'apaiser dans l'espace aéroportuaire et dans le secteur de l'aviation civile en général et conformément à ses principes de défense des intérêts des travailleurs, voudrait porter à l'attention de l'ensemble des travailleurs, des acteurs et des autorités en charge du secteur les éclaircissements et précisions suite au communiqué suivi d'une conférence de presse qu'une partie de l'intersyndicale, je précise bien, c'est une partie de l'intersyndicale parce que nous n'y étions des travailleurs de l'avion civil et du secteur des transports aériens, dont le secteur général secteur, euh, M. Moustapha Gaïmara, ici présent, a toujours assuré la vice-présidence. Comme vous le savez, à travers ce communiqué, le SEMPA suspend toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre au sein de l'intersyndicale pour marquer sa désolidarisation avec l'intersyndicale. Le SEMPA s'insurge contre le, dilat le dilatoire entretenu par l'intersyndicale qui parle d'immobilisme. Il ne s'agit pas cependant d'immobilisme car le processus est en cours de finalisation. S'agissant de la mise en œuvre relative à la cession des 5% de l'actionnariat, nous informons l'opinion que ce taux revient exclusivement, légalement et juridiquement aux travailleurs de l'AS. Le SEMPA fidèle à ses traditions de dialogue et de solution, préconise l'harmonisation de toutes les entités concernées et en droit et de l'augmentation de l'ISA complémentaire et prime d'harmonisation 10%. Cette mesure salutaire à tous les travailleurs peut être financée par une partie efficiente de la quote-part de la redevance service passager dédiée à AIBD. Conscient de l'importance que représente le gestionnaire dans le secteur, le SEMPA dénonce avec la plus grande véhémence, avec la plus grande rigueur, le lynchage médiatique orienté et orchestré par l'intersyndicale dans un communiqué contre l'AS à des débuts et fins inavoués. Face à notre préoccupation constante découlant de la préservation de notre outil de travail, le SEMPA est plus que jamais décidé à faire en s'accrochant à ses principes de valeur. maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha Mbaye nekk porte-parole Sympa adjoint bu Ousmane Sibi ki nga xam ne moom moo def discours bi ci tubaab waaw li waral point de presse bi nag defe naa ñun wax nañ leen ko dafa am démb su intersyndical bi nga xam ne ñoom lañ nekkal fii ci aéroport bi def sorti di def maanaam di ñu wax ne diagnostic par rapport ak. secteur aéronautique bi ñaxtu tamit ci ay revendications yi nga xam ni am na fi ba sax xaw cay tuddaale laas di ay ak AIBD suma bi nga xam ni moom mooy gestionnaire u aéroport bi ñu jàppoon ni nag ndeem sympa bii nga xam ni moom la le frère secrétaire général Serigne Moustapha Gueye Mara jiite ñoom ñooy mën nañ ne ñoo ñooy majorité wu travailleurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateforme aéroportière bi ndax jàpp naa ni nous représentons de quatre-vingt pour cent ci aéroport bi loolu defe naa ni lu ñu mën a saytu la mën koo vérifier ñu jàpp ni intersyndicat bi la mu def dañ koo def parallèlement ak bëgg-bëgg ñii nga xam ne ñoo fi nekk tey muy SYMPAS tey la leen animé ci loolu ñu def démb ak la ñu wax xam nañ ko ndax xam nañ la leen waxloo ak la ne seen ginnaaw di leen jëfloo waaye loolu dañoo yitteelul ñun SYMPAS dirigé par notre secretaire général benn yitte la ñu am ak benn préoccupation mooy naka la aéroport bi di doxee conformément ak ni nga xam ni moom la ko autorités yi bëggee en l'occurrence njiitu réew mi suñu ministre de tutelle ak sénégalais yi ndax ma fàttali ni ñi nga xam ne ñoo fi toog bokk SYMPAS ñoom ñooy ñi nga xam ni aéroport bi ca njëlbéen nga cosaan ba nga xam ni président bi fa newoon ba mu amee yéene tabax aéroport te soxla woon ay koppar yi nga xam ni moom lañ bëggee financer aéroport bi ñii ngi gis ñu fi toog ñoo tënk defoon tëju woon def lël ànd ak ministre des transport aériens ba fa nekkoon dalor créé loolu ñu doon wax RDIA RDIA boobu moom moo financé aéroport bii nga xam ni tey moom la ñu nekk di wax kon jàpp naa ni ñoom ñi nga xam ni non seulement ci seen xarañteef ak seen xam-xam ci lañu tegee woon RDIA bi ba tax le président de la république d'alors mënoon tabax aéroport bi te yemuñu ci xalaat ko non seulement dañ koo xalaat ba noppi daan liggéey ak collecte koppar yi nga xam ni moom moo daan dem ci RDIA bi ngir financer aéroport bi loolu point boobu li tax ma souligner ko dafa baax tuuti ñuy fàttali ndax da cee am lu am solo lu bokk ci ña ca la ñu wax ne ñoom dañuy revendiquer cinq pour cent ci actionnariat bi nga xam ni moom la état bi alloué LAS lim ak AIBD Suma te loolu ñu buggoon fàttali ni cinq pour cent yooyu comme ni ko si waxee ci nasaraan bu dee dañ koy joxe waaye dañoo jàpp ni nag ña nga xam ni. ñoom ñoo nations yi pexe lijjanti ba am i koppar yu tabax aéroport bi na si pexe liggéey seen farlu seen Pastef seen jàmbaar dajale ay koppar lu takku bañ tabax aéroport ba mu sotti waaye waaye ñu yaakaar ni ñooñu nag jàpp nañ ni xanaa kañ yow boo wutee koppar ci sa pexe bopp liggéey ko dajale ko ñu tabax kër gi ba kër gi sotti waaye xanaa sañ nga cee laaju pantere loolu dañ lay fi demee 5 pour cent yooyu ñu buggoon leeral askan wi ne ñoom ñoo ñuy di ko wax ñoom dañ cee amul dara cinq pour cent yi bu fekkee ni am na borom am na ñu ko war a laaj am na ñu ko moom mooy ñii fi toog tey ndax ñii ñoo yeyoo 5 pour cent yi ñoo ko liggéey te seen àqle di seen yelleef loolu dañoo buggoon rek mu leer pour opinion nationale beek internationale xam ni cinq pour cent yi noonu la demee ñoom nag fan yi ñi ngi agité wu di wax ci seen revendication yi bokk nañu ne dafa am li nga xam ni moom mooy li ñuy tuddee ISA complémentaire ISA day indemnité. de sécurité aéroportière ba ñu fiy ñëw ñoom waa ASECNA yi dafa am ñu ci ñaxtu woon ba ministre bi yokkaloo leen ko mu yemoon ci ñoom ñuy dox di dem ba jëmmi jamono ñoom ñu yaatal ko seen biir ba mu maase si ñoom ñëpp ASECNA te ma fàttali ni boobu yi wax nga xam ni moo ñu boole ñun ñëpp tënkuñu ci aéroport bi dañoo xaatimoon kayit bu ñuy tuddee ni harmonisation maanaam de tous les acquis au niveau de la plateforme maanaam lu ASECNA am. dañ ciy boole ADS euh, LAS dañ ciy boole AIBD dañ ciy boole 2AS ñoom nag bañ ko amee dañ koo féetale woon seen bopp boole wuñ ci kenn ñun nag waxuñu ci waaye bañ demee ba jàpp ni lii nga xam ne ñoom ñu ngi koy fayeeku di ISA bi te ISA boobu it xëy na jotaay bi dañu dul may ñu xóotal pour wax leen cosaan li ndax fa mu jugee ndax loolu it baax nañu leeral ni ISA la tax mu am ñii it ci seen xam-xam ak seen xariñ ñoo ko tegoon ak directeur ba nga xam ne moom lañ nekkaloon à l'époque jamonoy ADS muy le directeur mbay Ndiaye ñu profité sargal ko nuyu ko loolu mooy ISRA bi nga xam ni moom la gars yi di ñaxtu ñoom ba ñu demee di ko fayeeku ba benn jamono ñu jàpp comme que dañoo waxoon ne aéroport bi lépp lu fi nit am dañ koy généraliser ndax ñoom gënuñu cee yey te rax ci dolli ISRA boobu ñun ñi nga xam ni ñun ñoo laaj ne dañ ñu cee war a fay waaye ISRA boobu koppar yooyu ñun ñoo koy liggéey di ko dajale di ko jox AIBD nga xam ne moom moo représenté état du Sénégal ci laas. waaye xanaa nag kañ kuy joxe di jox kenn koo xam ni moom dëkku fi waaye xanaa kon ki fi dëkk kon war mën cee gën a yey bañ nee nag nañ ko généraliser ministre bi bind ab kayit xaatim ne ISRA bi nañ nañ ko nañu ko teg ndëgëniku fexe ut ay pexe yoo xam ne dana tax harmonisation boobu effectif ba bépp entité bu fi nekk mën cee am wallam li nga xam ne mooy axaf ak ay yelleefam bu xëy na nag daa tax loolu. xaw na leen a naqari am déet ñun loolu leeruñu mais loolu jàpp nañ ni ñoom seen problème la ba tax ñu agité wu waaye ISRA boobu nañu xam ni ñoom gënuñuñ cee yey te ñoom niñ ci amee ak ak yelleef ñun ak ñeneen ak ñeneen noonu lañ ci amee ak ak yelleef te loolu dañuy profité di wax ministre bi ne loolu ñu ngi koy rappeler encore position bi nga xam ne moom la ci suñu secrétaire général amoon ca ndaje ma moom lañu am ba léegi varié wul ISRA bi ce sera général pour tout le monde ndax ñoom nag gënuñuñ cee yey wax nañ tamit bu dudd terrain yi nga xam ne mooy terrain wu dàgg xolpa te état du Sénégal diggoon ñu ko te waaye terrain wu dàgg xolpa yi ñun ba ñuy jógee aéroport Yoff di ñëw fii loolu dañ ko négocier woon ak le ministre mun a Ndoye Seck état du Sénégal waroon ñu ko jox ndax ñun aéroport Yoff ba ñu jógee dañ faa bàyyi woon ay suuf ay terrain ADS bu ñu jógee dañ faa bàyyi ay patrimoine yu dëkkee ni ay kër ay garage ak yeneen ak yeneen te sax loolu ñu ngi interpellé Sénégal di ko wax ne ko loolu bëgg nañ ci ay leeral la ñu bàyyi woon ADS mu jëm ca kër yaag dëkkuwaay yeeg patrimoine u ADS maanaam ci gàttal pour ba a wax euh, tubaab bëgg nañu xam loolu fan la toll ak nu mu féete ndax for nañ sax ci yooyu béy na ña doon wax démb di agité wu ñoom am nañ ñu leen si jot jox loolu bëgg nañ ñoom ñu leeralal ko nañ ñu leeral ndax ñoom suuf sa yoof dañ cee am waaw wala déet ndax am na lu ñu ciy dégg loolu moom bëgg nañ mu leer ñu bëggoon leen wax ne te diagnostic bi ñu def concernant diagnostic bi mais kuy diagnostiqué ñun ba ñu ñu ko war def waaye booy wax da ngay wax lépp mu mat doo wax lii bàyyi lii ñoom ñi ngi wax concernant jafe-jafe yi nga xam ne aéroport bi am na ko ñu bëggoon leen fàttali ni aéroport bi 2017 lañ ko ubbi te mille 2017 ak léegi lépp loo xam ni certification la bu aéroport war a mën a am ci ndoxin bu dëppoo ak jamono bu baax aéroport bi am na ko te loolu nag kenn waralu ko encore une fois lu dul ñii fi toog ndax ñoom ñooy li ñooy liggéey ci aéroport bi ñoo koy doxal ndax ñoom dégg naa leen ci seen wax démb ñuy xuppe ne ñoom danañu passer à une vitesse supérieure convoqué assemblée générale ba dem sax ci tëj aéroport bi walaay walaa maa ngi leen di wax ne yéen Sénégal ñoom ñoo ñii bu ñu wootee te ñun bokkuñu ci du ñu mat fukk rax ci dolli ñoom bu ñu nee mën nañoo tëj aéroport bi te ñun am nañu ci du sotti mënta ne loolu moom dañoo bëgg mu leer. aéroport bi ñi ko mën a tëj a ngi nii ndax ñu ñooy doxal aéroport bi ñoo ko daan doxal yoof ñoo koy doxal fii te boobu ak léegi nag lépp loo xam ne certification la li tubaab di wax certification maanaam mandargal liggéey bu ñoŋ bu jaar yoon waaw aéroport bi am na ko te lool jàpp naa ne c'est vérifiable loolu daal mbooloo mi yaakaar naa ne mat na mooy li nga xam ne buggoon nañ ko ànd ci ay éclaircissement di wax ne nag bëggoon préciser ci ñoom bokk na ci li nga xam ne moo leen agité ak lan leen ka leen orienté ka leen yónni lam leen di waxloo li ñu jàpp ni mooy seen jafe-jafe mooy ñii nga xam ne ñoo fi nekk ak ñun di ay turc nekk ci euh, suma ak limak di liggéey ak ñun ci nga ci aéroport bi ñu leen di wax ne ñun ñun indiwuñu leen fi ñun dañoo ñëw fekk leen fi dañ fee ñëw ci cooba rek état wu Sénégal te ñun ñi nga xam ne moom mooy suñu war-war ñun sénégalais yi fi nekk ak ñoom ndax ku ne dégg na mi dañ ne Sénégal réew teranga la ñun day boobu ak léegi mi ngi bëgg a yàgg mat na ñeenti at. waaye fexe nañ ba suñu nekkin ak ñoom rafet na teraanga gi nga xam ni moom la ñuy wax Sénégal ñu ngi koy seq ak ñoom di ko dox ñoom ñoom da yaakaar naa ne boo leen laajee danañ ne suñu dëkk ak ñoom rafet na walaay wala